ah bu dee yaa ngi tedd yaa ngi am xaalis kay non non da ngay da ngay da ngay da ngay mais doo décrassé wu ku ne jox xaalis da ngay def mais man sama dignité ak sama valeur ak ku ma toroxal humilier ma respecté woo ma dama lay bàyyi. Adji Sarr bàyyi naa ko lu jëm ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr man Adamo dootuma ci wax Macky Sall nag dama koy jàppale ko bu bout Macky Sall dama koy jàppale deuxième quinquennat bi ba mu neex ba Macky jër réew mi mais lu jëm ci Adji Sarr moom. man aadama dootuma ci wax man damaa am fulla man damaa am fayda man aji saar amalu ma benn njariñ amalu ma benn intérêt aji defalu ma dara aji amul lu ma ëppalee yaa ngi dégg kon man aji saar dama ko doon jàppale rek en tant que jigéen yaa ngi dégg mais nit ki bu la respecté ah da koy da da ngay xam sa mopp nga bàyyi ko loolu moom mooy wax ji moo tax ma pare ci moom mais kii ma Macky Sall moom damay continuer di ko jàppale ma répété Macky Sall damay continuer di ko jàppale jusqu'à bout mais bàyyi naa Adji Sarr information yi ñi ko doon xaar ci man wala ñu koy xaar feneen nan dem wuteeku feneen waxatuma ci sama yoon yónnewu ci merci beaucoup